mbokk yi ba tey euh, ñu ngi fii ci euh, Cambérène euh, per Birahim kenn du leen ko présenté per tey ñu daje fi daje boo xamante ni tiis la mu dal ci monde làmb yëpp muy génn àdduna per Balla Gaye yan témoignage nga ñu ci mën a defal. waaw gannaaw bu ma waxee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah yàlla ci borom bi la jóge woon ci la delluwaat yàlla na yàlla daje ak yërmande borom bi. barakatu rasulilah salaam nee na nit ku baax la woon parce àddina moom. booy témoigner nit wax dëgg yàlla témoignal ci la nga xam rek parce que ñoo maase carrière defandoo carrière bërindoo ba tàyyi nag bëri lu bari ko daan dajee ci arène bi lu bëree bari mu nekk écrit wala mu nekk écrit di topp ci ginnaaw Mbaye Guèye ñun ñëpp tey wax dëgg yàlla bu génnee àddina ameel nañ ko ñaan amee lañ ko njàll yàlla na ko yàlla xaraajar nit ku baax la woon nit la woon koo xam ne ki wax dëgg yàlla man lu ma mës a déggal bàyyi na lépp ñëw sama yaay gaañoo ñëw na fa mais may sama doom ñëw na fa kon man bu ma déggee génn àddina kenn waruma faa jëkk moo ta tey ma ñëw si rob bi ñaanal ko ku te dama ko fas yéene di ko ñaanal it ba keroog ma koy fekk mais ku baax ni so sportif la woon daal xam nga sport sportif moom dafa doon sportif rek parce que waroo jël dara muy dara defoon noonoo geeg xarante geeg rayante geeg waxante lu ñaaw yëpp fii rek lay mujj fii rek fii rek lay mujj waaw tey kenn denc moroom rek keneen ko ko leer moo tax rafetal rek moo ci am solo. may dénk ko di ko dénk sama bopp di ko dénk ñëpp nag di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla defal ñu sutura ba sport bi xam ne day jeex comme day jeex tey comme day jeex tey ñun lu ñuy jeex lañu nañu fexe di rafetal rek moo am solo waaye def lu ñaaw amul solo kon yàlla na yàlla musal ci def lu ñaaw kon yàlla yàlla doon sutura maa ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla yërëm waaw.